waaw comme comme temps bi xoj nañu te amul uh-huh. topp jarul ñuy guddal. Uh-huh. dafa am ñaari mandarga yu mu def bi mu ñëwee parce que man maa fi jiitu moom mu ñëw topp ci. Uh-huh. Uh, bi mu ñëwee dafa ñëw xaarul ma nuyu ko moom moom mu ñëw nuyu ma. déjà premier mandarga. ci koo xam ne am nga tour nit ñaa ngi lay topp. Uh, beneen bi mu def mu ñëw mën a ko toogal mu ne comme xaw ma fi. te barabu liggéeyukaay la naa taxaw ban jox ma chaise bu ma war a toog ma toog ci. benn benn ñaari ñaari yooyu bu ko nit amee bu ma la xamul sax boo ma joxee ñaan dama ko jël. ñetteel bu mu ñëw fekk ma ma toog mu am lu mu ma wax man ci man ci waxuma ay ay waxi baatin waaye ci àdduna ak sama liggéey. ci koo xam ne xaw ma donc muy ñett yoo xam ne bu ko nit amee. def naa ne bu bu ñu mel ni Pape dañoo war di bëri ci télé bi ba pare mu yeewu fajar ñëw toog fii. wallaay ni moo tax ñu wóolu ko moo tax ñu wóolu ko donc alhamdulilah rabil alamin yal na yàlla ñëpp dégg 155 yaa salaam bëriwut. 155 bu kenn toog ne sama morom dana ko def ndax kenn xaarut kenn nooyi la. bu kenn tayal kenn xaarut ne diwa ngi nooyi dana na bu nooyi danaa bu diwa ngi lekk danaa lekk. Mhm. donc comme temps bi xat xam ak xamleeg euh, docteur Massamba Gueye euh, dem ci euh, baat yi laata léebu ay bés bi ñu jàll ci baat bu njëkk bi. gisuma ko de fu ñu ko bind. fu ñu ko bind gisuma ko de ayca jox ñu ko ci écran bi ci ginnaaw Mao. merci Babli Massa waaw bii nag moom dama ko bëgg a wax képp koo xam ne ci biir campagne bi yaa nga doon wax lu ñaaw. baat bii la la war daan wax tuug. tuug tuug baat bi dafa tumuranke mhm. nit bu daan wax lu lu gor lu gorte génn ci gémmiñ ne dañu ko tuuge waay. dëgg la nopp dalooti na tuug. waaw tuug kay baat boobu lu tax ba xam nga lu tax sa nopp dalu. Hmm. mooy baat yooyu di artu wax di ñaaw dañoo tumuranke kon li ngi bàyyi nit ñi ñuy wax sax baat bi boo ko daan dégg rek mooy tuug. tuug ñu ne waay waay. Hmm. tuug waaw jàppal baat baa ngi noonu. lu lu muy tekki. mooy mooy noppi lu war a ah, waaye tuug waay. rëccul li nga wax ni tuug ko. mooy dàq la ñu ne waay tuuge waay. waaw baat bii dafa tumuraanke d'accord ndax dafa waroon nag du bëri candidat boo xelu ñaaw ñu ne ko tuuge waay wan naa tal li nga wan naa li nga wax tama wécc ko kii baatu wolof la tuug macha allah ayca bu ci topp macha allah bii mooy tukkal ah, tukkal na jamono. tukkal na jamono waaye gileem it da koy def. Ah. tukkal at gileem bu matee ba mat ba nga xam ne dootu màgg. waaw ñaan gileem gi tukkal na. maanaam maanaam àgg na ci maturation ba nga xam ne fi mu ne nii. Mhm. Euh, jëlëng bi mat na euh, nu mu tuddati. Euh, boos bi déedéet tuddul tuddul boos de <laughs> ndodd mi. waaw ndodd mi ñor na. Ah. léegi bu ko defee nag ñu ne gileem tukkal na. tukkal na mhm. ñu ne gileem nag bu tukkalee Pape. Mhm. wolof wolof def naan sama gileem tukkal na dootuma wari mbaam. Ah. dafa am foo xam ne bu fa nit tolloo dafay xam ne kilifa la. du amul fukki at amul ñetti fukki amul ñetti fukki at ni ko Gambien yi waxee kilifa la. tukkal nag mooy mooy matal sëkk. nit nag fii ak tukkalul kenn waru koo joxum réew. tukkal nag bu ci ay at. ci comportement la. waaw moo tax ma indi baat bi tey nit nag mënut a tukkal àdduna àdduna yàlla dong nga tukkal. ndax waxoon naa la ne la néeg bu ñu tabaxut sa bànneex saw naqar sa naqar du ko toj. <laughs> dëgg la de. Oh. waaw ay ci ñu dem. amuñu jot baat bi ci toog. <laughs> bii nag mooy tugal. tugal ah. te ba te bokkul ak tukkal bokkuñu. cay tugal. waaw tukkal tukkal. waaw tukkal tukkal tukku ga waaw maanaam tukkal gii nag. ñun moom la ñuy xool ñun ñëpp. comme ñun ku jóg tukkal nga bëgg a dem. ñoom bu ñuy def élection. Mhm. dañ koy def ba pare dem liggéeyi. Mhm. ni ko tukkal di defee rek nan ko defee noonu. léegi tukkal bii nag. Mhm. mag ñi dañ ko tuddee woon réewu tubaab. ndax baat yi dañoo amoon ñaari baat nasaraan. lañ daan tuddee tuddee leen tubaab ñii jàng arab xam na ne ñaari baat yooyu benn baaxu ci ci arab ku ñu xool ba ne la tubaab nga. ak baatu araab ba nga ko tuddee mooy doo texe. ku ñu xool làkk bu ñu xool ba ne làkk bi nasaraan la. mooy làkk na nasara. kooku moom na la leer na moom it du ku yàlla yàlla gërëm ci alxuraan. mag ñu xooloon ñooñu ba ne seet ñoom ñoom ñoom du nu ñuy texe. te làkk wi nuy làkk du làkk ku bu yóbbu nit ci yiwu at. ci yàlla waaye ñu koy wax ci rajo yi nag xibaar yi ci nasaraan xamuñu leen wax bu ñu ko waxee <laughs> te dañ boole doomu bu métti xibaar yi ci nasaraan yi ay xibaar yi ci nasaraan nag et cetera benn baaxu kun ne fi tubaab la bàyyi boo nga nga dóor ki la ko wax mbaa boo ko mun nga ne ko tuuge waay man kat du ma tubaab ndax damaa bëgg a texe. waaw tugal gii nag moom mooy France ci wolof. Mm. boo déggee tugal rek mooy France. Mm-hmm. damaa bëgg a dem tugal la mag ñi daan wax. Mm-hmm. waaw baat yi nag moo tax ma ne bu ñu ko boolee nag dina am léebu bu mu jur. Mm-hmm. waaw. macha allah léebu ay bis bi. gëleemu tukkal boo ko waree ba wàcc boo ko waree ba wàcc jur goo waraat. mu jur goo warati. ah jur goo warati ah, mu gàtt dañ nga gëleemu tukkal boo ko waree ba wàcc. Mm-hmm. jur goo warati mu gàtt. ah gàtt dañuy cil de bee tax ñuy kii ñuy tàllal aabi ndax boo gàttalee aabi rek mën na doon leneen. waaw ah. gis nga Pape boo xasee ba nekk directeur général lu TFM. Ah. bu la wooyee def la fi caméraman poste boobu dootu la tiital. ah ay waaw mën na ko wane de. waaw laaj papa Cheikh mii. naa ko de. billaahi mérité na waaw kon kon bu kon kon moo tax ñu ne la gëleemu tukkal. <laughs> gëleemu tukkal boo ko waree ba wàcc. <laughs> na ngeen na ngeen déglu. bu ngeen déglu damay noppi. <laughs> waaw bu noppi. pa dafa ah, xër rek. ndax tubaab sa xër rek. ndax ndax ndax tubaab wolof dafay wax ne ca tubaab bi sax wax na ko. Mm-hmm. nee na booy wax ak nit te te dégg laa déglu. Mm-hmm. déglu ko yow ndax nga xam lu tax nanguwulaa déglu. dëgg la déglu. moo tax ñu ne gëlee mu tukkal. gëlee mu tukkal. Pape ñun dañuy xeeb yenn yi. Ah, gëlee mu tukkal boo ko. Pape nga judd CM2. dem ba CM2. ña nga bokkaloon CP1 kenn àggul ci CM2. yaa ngi ci gëlee mu tukkal. <laughs> ña nga bokkaloon. CP1 kenn àggu ci CM2. yow nga yegg CM2 nga dal ci daara ji mokkal alxuraan ña nga àndaloon kenn mokkalu ci nga xeeb mokkal googa. ñoom nu ñu def ñoom. ñoom de bu ñu gàttee xel mere la sax. mu ngoog moo tax ñu ne la gilee mu tukkal dafa am koo xam ne bëtam dafa fees gisatul dara. mer bu futtu moo ba gi gone yi tukkal nanu ba seen xel yi tukkal. maanaam ñuy ñuy ñuy yuutu yu ndand yi. ñu koy yootu. li yonent bi wax ne inna Allaha yuhibbul ma'alil umuur. waaw waaye yëkk na sax sax. mu gën a bëgg tax nag tamit sib na ki naan lii mun mu ko am bàyyi da ko waxoon ci wax ju yomb mhm. ne teraangay àdduna yii mhm. doomu aadama tax nit wàccee ko boo ci jombale sa bopp mu jomb la te ñoo ko moom boo jombale sa bopp ne doo am jet privé doo ko am boo jombale sa bopp ne doo mokkal alxuraan doo ko man boo jombalee sa bopp ne doo nekk président doo ko laaj ba koy nekk mhm. moo tax nañ ñu ne ginee mu tukkal ku ko boo ko waree ba wàcc jur jur animal boo waratee mu gàtt ci yow nit ñi nanu xam leen am te bañ koo xeeb te yóotu yu mag yi te yóotu ko ci yóotin wu rafet waaw ki nga xam ne nag moo war a wër gi mu tukkal gii di Sénégal yàlla na ko war ba bu ko wàccee jur gu mu warati mu gàtt ci moom waaye yàlla bu mu wax ban ni ko tuug yàlla bu mu tukkal réew mi yàlla bu mu tax ñun ñëpp ñu bëgg a dem tugal yàlla na réew mi dàq tugal est-ce que <laughs> amiin macha allah <laughs> macha allah waaw <laughs> duñ ci teg dara de ndax euh, wax ji am na solo.